mu ne kon quelle audace dans l'escalade kon bii fit ci yéeg gi mu yéeg moom Modou Fall il continuait d'ailleurs à verser mensuellement à la SICAP il continuait mu nga doon wéy d'ailleurs ba tey à verser di teg mensuellement weer wu ne à la SICAP société boobu di SICAP nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum kër soixante quinze mille francs la leen doon la doon teg weer wu ne di ko déposer SICAP ces versements teg yooyu noonu devait durer waroon naa àppal waroon nañ ko appal une dizaine d'années ci fukki at pour que la maison lui appartienne pour kër gi mu moom ko kon doon na wéy di yeggale teg bi mu doon teg ci société boobu ngir këram gii nga xam ne euh, moom la dëkke mu man ko moom doon na ko doon na ci teg nag weer wu ne euh, soixante quinze mille francs kon kër gi moomugu ko kon dañ ko dañ ko dañ ko crédit de bail la maanaam dañ ko ko abal muy muy versé weer wu ne soixante quinze mille ba korok muy moom kër gi loolu la wax foofu mu ne quatre millions emprunté ñeenti millions yu nu àbb avec facilité ci yomb nee na ñeenti millions yoo xam ne abal nañ ko ko ci lu yomb vu sa situation privilégiée ci euh, xaal bi nga xam ne moom la amee ci nekkin wi nga xam ne moom la nekkee muy xam nga jox nañ ko promotion yóbbu ko ministère de la fonction publique kon noonu mu nekkee nag moo tax fu mu àbb rek des koy abal waaw mhm. et qui avait permis d'envoyer Dame Belle-Mère mu ne loolu tamit moo mënoon a moo moo ko mayoon mu yóbbu goro bi et son époux ak jëkkëram acquérir les titres de Adja et de Aladji à la ñu mën a jot acquérir mooy ñu mën a jot les titres titres Adja ak Alaaji Adja mooy ku dem Màkka te doon jigéen Alaaji ku doon dem Màkka te doon góor moom lañ koy woowee fii ci Sénégal hmm? alxaaj ci baatu arab la jógee nag alxaaj mooy ku jublu ku jublu ah kon donc loolu mu amee woon daal ñeenti million yi daal mu àbb ci yombu ak situation bi mu amee nii looloo ko mayoon mu mën a yóbbu gorobu góor jigéen bi ak bu góor bi jëkkëram muy jëkkëru euh, bu jigéen bi ñu jot titre Adja ak Alaaji Euh, jëm Màkka qui permettait également looloo ko mayoon tamit les changement continuels muy mën a soppi soppi gu sax des Alfa Romeo ay oto yu ñuy wax Alfa Romeo ay xeetu oto la a ab marque la woon de Bintu Bintu dana am oto bu ñuy wax Alfa Romeo mu koy soppil saa su bëggee mu soppil ko rek mu soppi ko à la moindre bosse ci nor euh, nor bu ndaw bu mu am rek mu soppil ko ko ndax booba mi ngi mën a xaalis. bu bari ci ci ci ci yombal ndax ni mu nekkee kon lii lépp doon na ko def ci euh, jabar euh, soxnaam si nii muy ñaareelam bi ah, yóbbu na goro yi màkka euh, do do jabar ji tamit gis nga ko doo koy changé oto yi saa su amee nor-nor maintenant léegi nag je saisis jàpp naa l'horrible signification de l'abandon par Moodu maa ngi Euh, jàpp je saisis maa ngi jàpp euh, maanaaw bàyyi ma euh, bàyyi gi ni mu toll bàyyi gi mu muudu bàyyi ah mu muudu bàyyi gi mu bàyyi je saisis jàpp na l'horrible signification dëgg dëgg maanaa wala maanaa bu garaaw si si muudu bàyyi gi mu bàyyi du compte bancaire compte bancaire bi nga xam ne kii nous était commun ñoo ko bokkoon léegi nii nag jàpp naa. Euh, sensu wala maanaawu bàyyi gi muudu bàyyi woon compte banque bi nga xam ne ñun ñaar ñoo ko bokkoon léegi maa ngi dëgg dëgg dëgg xam nag li tax je saisis mooy je comprends rek je saisis mooy dégg naa dëgg-dëgg maanaa li tax muudu bàyyi woon en compte bi nga xam ne moom lañ bokkoon il voulait s'isoler daa bëggoon a beru financièrement ci wàllu al alal pour avoir les coups de France ngir mu am liberté ba yéemu bëgg a def mu mën koo def coup de France mooy liberté mën a yóbbu gore yi màkka mën a def lu ko neex et puis ginnaaw bi ayant retiré Bintu génne na Bintu du circuit scolaire ci programme scolaire mooy programme njàng bi il lui daan na ko euh, teg daan na ko jox une allocation lu mel ni salaire mensuel weer wu na ko jox lu mel ni salaire weer wu ne de cinquante mille francs daan na jox cinquante mille francs euh, jabaram ji muy Bintu comme un salaire du mu defoon ko salaire bu war. la petite xale bu jigéen boobu muy bintu très douée yeew woon lool voulait continuer ses études bëggoon naa yeggale am njàngam passé son baccalauréat daal di def ab bakam muudu muudu mi nga xam ne mooy sama borom kër ma lay yeewu lool pour asseoir son règne ngir mu toog ci nguuram entendez mu déggoon la soustraire au monde critique mu mu mu déggoon génne génne xale bi wàññi xale bi ci àdduna euh, bu bëri critique bi et impor impor impitoyable des jeunes te ñàkk yërmande ci gone àdduna bi nga xam ne daa bëri ay critique daa bëri ay yu ba pare ñàkk yërmande ci ci ci ndaw ñi kon muudu moom dafa yeewu lool pour gën a ci nguuram euh, dégg ne génne xale bi ci àdduna bi nga xam ne daa jaxasoo te ñàkk yërmande ci gone yi daal di génne gone gi di ko jox weeru dee su fukki junni te xale bi bëggoon naa def bac moo tax mu ne muudu muudu malin malin yeewu na pour asseoir son pour mu toog ci nguuram entendez la soustraire au monde critique génne gone gi ci àdduna bu jaxaso bi et impitoyable des jeunes te mu ñàkk yërmande ci gone yi il acquiesça il acquiesça il acquiesça nangu woon na donc ba tey à toutes les conditions de la rapace ci euh, condition buñ ko tegoon rek da ko doon nangu moom muudu de la rapace mooy ay pexe rek dégg nga lu mu ko tegoon rek da ko daan nangu ndax bëgg lu leen neex Dame Belmer mooy goro bi avait signé un papier signé loon na ko ab papier où il s'engageait à verser boo xam ne dogu woon na ci di ko di ko jox di ko tegal tous les mois weer wu nekk la dite somme mooy somme boobu mu ko digoon muy cinquante millions yooyu bindoon na këyit ne weer ko jox Dame Belmer goro bu jigéen bi brandissier yëkkati woon na sa papier këyit boobu car ndax. elle croyait foogoon na elle croyait ferme foogoon na ci bu dëgër que ces versements que teg yooyu noonu devait continuer daa war di wéy daa war di wéy même à la de Moodu donte Moodu da gaañu na sur l'héritage ñu génne ko ci ci euh, miraas bi ñu génne ko ci lekk bi maa fii daba sama doom bu jigéen daba elle moom it brandissait woon na wane woon na un constat un un un constat d'huissier ab kayitu huissier daté boo xam dañ ko daté woon du jour de la mort de son père bis ba baayam gaañoo ki indiqué mu doon leeral tout le contenu de la villa Sicap nga xam doon na wane lépp lu nekkoon ci biir kër ga Sicap kayit googu daba wane woon na ko daba moom it wane woon na ab kayit boo xam ne huissier moo ko constaté woon bis ba nga xam ne moom la papam gaañoon muy tegtale lépp lu nekkoon ci kër ga rek euh, daba wane woon na ko la liste fournie par Dame Belmer liste bi nga xam ne moom la Dame Belmer wane muy goro bi et bintu ak bintu doomam muy jabari muy ñaareelu muutu bi ne mentionné pas euh, wane wutoon wala binduñu woon ne mentionné pas bindutoon certains objets yenn jumtukaay yi et meuble ak ay meuble mystérieusement disparu nga xam dañ koo làq ci ci ci nëbbatu ci anam bu nëbbatu ou frauduleusement soustrait wala dañ koo wàññi ci atomu ana anamuk sàcc wala ana anamuk naafiq wala ci anamuk njuuj njaaj waaw kon dañ koo wàññi daal ci anamuk njuuj njaaj ci ma ko ne excessivement sentimental xam nga mu baax a baax ci ni ma ëppee ci ci ci ni ma senti ni ma ni ni ma amee xolu yërmande ce qu'on de part et d'autre liñ doon wane fii ak fële ne me plaisait pas du tout neexuma woon waaw kay foofu la euh, chapitre 4 bi jeexee